dañuy continuer toujours ak allocution yi ak suñu frère le grand Assane Diouf Ah, Assane booy nee nañu na nga xoromal Assane xoromalal xorom wala suukar xorom wala suukar xorom wala suukar xorom wala suukar salaamaaleykum sama gaay est jar na may wax ñaata Assane Diouf ñoo taxaw fii dama bëgg ngeen jox petit Antoine message bi le petit Antoine nee leen ko ñun duñu daw ñu dellu ginnaaw jëleel ñu Amérique du tax ñu noppi dugal ñu ci kaso bi du tax ñu noppi mais dama leen di fàttali gis nga xam xam naa xale yu bari ñu ngi fii mais xamuñu histoire place bi bu ngeen gestoo nii gis ngeen bâtiment bële moo nekkoon siège u papa Abdoulaye Wade mars bleu bu leen kenn tere bu leen kenn tere mbedd mi te man mii rek waxuma usmaan waxuma ñii toog man rek bu ma ne woon gars yi aywa jël leen yoon wi ñi la taxaw ci kanam duñ ci mën dara sama gars yi dañoo jibbu xorom Fatick ba xorom amatul Fatick léegi xoolal ñoo ngi ci liquide liquide bi laa wuti woon lagrose liquide bi parce que il faut ñu sang ko nit boo ko dumaa nangul ay duma mbaa mu naan noo duma yi fan la ndomba jaar da ngay wut xorom sotti ko ko mbaa bineegar te loolu moo ci des xoolal li ma bëgg a wax yëpp di ko wax mooy bu leen kenn yëpp ba pare xoolal par force la wax leen ko par force la yeewi askan bi par force la dañuy dem élection par force petit Antoine day démissionner par force Macky Sall non troisième mandat par force ñun ñooy Sénégal merci beaucoup yàlla na leen yàlla defal jàmma ah. merci beaucoup Assane assan nee na liquide bi la andi dinañ ko soxla ñun ñëpp nañu uti liquide bi. la coalition Wallu également la présence de Abdou Bara Mbacké Dolli mu ngi fii ñoom ñëpp dinañ ànd jox leen kàddu ndax dafa am loo xamante ni bañ ko defee dimanche le 8 mai dafa am lu yëngu kër gu mag xam ngeen mooy lan lu bees ci politique intercoalition moo tiital Macky sàll ba tax na mu jël ab poussin jox ko ne ko sàccal liste sur ce dañuy jox kàddu gi monsieur Mamadou Lamine jallo mu jël kàddu au nom de la coalition Wallu bu le président Abdoulaye Wade monsieur Diallo président. asalaamualeykum mbooloo mi maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp seen tur ak seen sant di nuyu waa Sénégal yëpp. maa ngi nuyu waa Ndakaaru Njaay di ko jaarale ci loxo monsieur le maire Barthélémy Diaz maa ngi nuyu la coalition Yewwi Askan Wi jaarale ko ci loxo président Khalifa sal Ousmane Sonko ak ma sœur Aïda Mbodj maa ngi leen di jottali nuyoo président Abdoulaye Wade mooy président coalition wàllu Sénégal di leen xamal ne yeewi askan wi ak wàllu Sénégal ñoom ñoo fi andi lu bees ci politique muy intercoalition intercoalition bi dafa wër nomb Macky Sall parce que yàgg na gëm ne moom Macky Sall moom njuuj njaaj mën na ko mokkal na ko xam na naka la koy defee mais bii pas def nañ ko le mais mai à 16h25 nu daje taxawal intercoalition Yewwi Wallu saa waay affolé gars ñu ko wër afole ñu xool nag nañuy daanelee intercoalition boobu mobiliser ci ñoom nu mu koy waxee Antoine ñàkk jom ak conseil constitutionnel ak ñoom ñëpp te yaakaar ne mën nañu yàq coalition boobu mën nañu yàq intercoalition Yewwi Wallu dañuy sonal seen bopp duñ ci mën dara di wax ne dund gi cher xale yi amuñu xëy famille yi sonn nañu mère de famille yi sonn nañu Sénégal bi chaque année deux cent cinquante milliards wala trois cent milliards moo fi jóge ñu luubal ko sàcc ko génne ko yóbbu ko dans les paradis fiscaux ay Dubaï ak fu kenn xamul loolu moo waral ñu sonn loolu moo waral dund gi cher loolu moo waral xale yi amuñu xëy loolu mooy liggéeyu Macky Sall ak régime mu Benno Bokk Yaakaar loolu dafa war a dakk fi ci Sénégal Macky Sall fukki at la ko yàlla joxoon fukki at yi mat na ni jël ay bagaasam dem yoonam dama ne Moustapha Niass su d'accord woon jël sama proposition de loi bu ma dugaloon ci affaire góor jigéen ak LGBT kon France Gana Gueye kenn du ko sonal kenn du ko terroriser parce que danañu xam ne dëkkam dañoo criminaliser homosexualité kon nag gaa ñi nañu takku. ngir jot sunu ay vidéo di ngeen di abonné fii ci seen chaîne YouTube Tawfekh Production.